مكتوبة بالنضار في سجلات تاريخ العظام أن أرحب بكم فقط بالنظر لكن الحدث أكبر من النظر فوضعت النثر جانبا وألفت قصيدة أرجو أن تنال رضاكم فبالحقيقة الحدث أكبر من الشعر ومن النثر معا wa min alraqsi wa min altaabiri bi kulli alwasail almumkinati wa gayri almumkina القصيدة بعنوان وجاء أهل المدينة يستبشرون Thank you. القصيدة بعنوان وجاء أهل المدينة يستبشرون أهلا بعودة فارس الفرسان فخر الزمان وفخر كل مكان أهلا بعودة فارس الفرسان فخر الزمان وفخر كل مكان أهلا به من ماجد ومجاهد نشر الطريق وفيضة التيجان أهلا به من مصلح ومفكر متبصر متعمق نوراني ذي همة قعسى وخادم أمة ماح الضلال مفسر القرآن نجل الخليل خليفة متحمس ندب همام عالم رباني أهلا وسهلا مرحبا وتحية مني إليك تميس ميس الباني قد ضمخت عطرا يفوح أريجه كجنائن في الشام أو تطوان أهل المدينة بالقدوم استبشروا أهل المدينة بالقدوم استبشروا وتفاخروا علنا على الأقران حمدوا كما قد كبروا أو هللوا سجدوا لرب ردكم بأماني قد عدت بعد سياحة دعوية قد عدت بعد سياحة دعوية قادتك للخرطوم في السودان خط الفيافي والمهام هنائيا لنيال غر وفاشر وسطاني جمعتهم وحدتهم ربيتهم ومحوت ما في القلب من عميان علمتهم أن الإخاء هو الهدى آخيت إخوانا مع الإخوان ذكرتهم بالله دون تكلف وملأتهم من رحمة الرحمن ذكرتهم بالله دون تكلف وملأتهم من رحمة الرحمن أن يزرعوا في الأرض دون تكاسل ويشيدوا للناس في البنيان فاستبشروا وتهللوا وتبادروا في لهفة للصلح والغفران لا شتم بعد ولا اقتتال ولا جفا بل نهضة وعمارة الأوطان ونصحت للحكام لست مداهنا أن يحكموا بالعدل والميزان يا شيخنا الماحي عليك سلامنا نشدو به في عذب الألحان فالكون يهتف والمدى متطلسم من نورك الطاغي على الألوان طوبى لنا يا سيدي حققتم نصرا عظيما واضح البرهان طوبى لنا بالوفد صحبا إنهم يستلهمون رسالة الفرقان ذكرتنا بمحمد وصحابه والفاتحين بفارس ويمان ذكرتنا بمحمد وصحابه والفاتحين لفارس ويمان والحاملين النور يخترق الدجى الناشدين كرامة الإنسان يا أيها الماحي كيف بربكم قد جستم البيداء بالسوداء ما شاء الله يا أيها الماحي كيف بربكم قد جزتم البيداء في السودان وكتبت قصة فاتح متسلح لا ينثني بالعلم والإيمان وصنعت تاريخا مجيدا ناصعا لا ينمحي بتعاقب الملوان ما كنت إلا شائبا من كولخ لكن لديه حماسة الشبان ولديه عزم لا يلين وطاقة مشحونة بالحب والرضوان يا أبقريا ماحيا أو كاتبا يا ملهما فردا عظيم الشان اهنا فإنك قد رفعت رؤوسنا من ذا يجاري مهرة الغزلان والحمد لله الذي قد ردكم في صحة للأهل والخلان إنا نجدد حبنا ووفاءنا دوما لكم بالسر والإعلان إنا نباهي فيكم كل الورى ونجدد الترحاب بعد تهاني ثم الصلاة أزكى الصلاة على النبي وصحابه من جاهدوا بالله دون توالي السلام عليكم كل كل الناس لا يفهمون اللغة العربية ما كنت ليس الا تفسيرا لمفرغات لتقيل علي من الله day daal di jeex daay ma saare bi nafa allahu bi kal ummata nafa allahu bi kal ummata وذكر شكرا وسيعني يقال محمد الماحي الآتي بالسر لكل حين تقرير أسمعها الآتي بالسر الآتي بالسر لكل حين الأستاذ فرحان جم أيضا قال ستلعب دورا سيدي خطيرا تذكركم سيدي فقط ب كلام هشام بن عبد الملك لما مدحه العربي قال له أتمدحني في وجهي؟ فقال له ما مدحتك ولكن ذكرتك بنعم الله عليك كي تزداد كي تزيد حمدا وشكرا. doomu Cheikh Nasiru ibnu Cheikh Ibrahim mooy tatagal ki nga xam ne moo def li ñëpp dégg ne ko ñi ngi lay wax bismillah ci dellu gawar bi nga xam ne moo man ci gawar yi nekk di tiitari jamono nekk di tiitari place itam tiitaru jamono mbir la tiitari place mbir la Darfour xam na ci dara jamono jii gannaaw Cheikh Ibrahim ak xulafa yi fi jaaroon loolu itam jamono la mu ne ko maa ngi lay tatagal yow mi nga xam ne yaay eh, ku tabe ki dégg nga ne ko nanga am li nga xam ne lii mooy ak ndokkeel ci ñun ak sa bopp ne ko nag defaat nga lu bees mooy tariqa tijaan de mi ngi fi woon fayda mi mi ngi fi woon waaye tasaareaat nga ko tasaarewo bu bees boo xam ne borom amul sikki ne dégg na ci maa ngi lay waxaat ne la ahlan ci ki nga xam ne kii mooy kiy yéwénal fu fekk lu yàqu moo xam ci population bi ci gouvernement ci opposition te mooy mu fakkir mooy borom xelaat yi nga xam ne waxtu defee xelaatam ku ko déglu sa basiira eewu te itam daf koy xóotal ndax moom bu ko tond ndax borom leer la ndax leer lañ ko sol ndax moo wax ne ki nga xam ne mooy añee ci mbedd bi di reeree ci mbedd bi bu doon moom rek du demee nii waaye maaxi mu bàyyi moo téye woon ci ñaari mbagam te moo wax itam ci moom li mu wax léegi mu ne ko lii itte ju kowe la ju am solo joo xam ne kenn mënu koo def lu mooy da nga ràngoo garaat bi nga xam ne mooy xaadimul umma mooy serviteur u xeetu yonent yàlla Muhammad te baayam moo ko ko ràngaloon nee na ko yow mi nga xam ne yaay effacé réer te yaay al alquran bi ñaari baat yëpp mën nañoo dem ku firi alquran effacé nga réer effacé katu réer bu firee alquran dafay leer nee na ko najlul xali yaay doomi baay ji nekk di xalifa boo xam ne danga am xamaas xamaas mooy am responsabilité ba pare wagu takkaayu pare pour def ko euh, nee na nag ba dafa nekk di koo xam ne euh, jàmbaar la ju borom hitte waaye nag dafa am xam-xam mais du xam-xam bu simple xam-xamu rabbaani la amee nee na ko mi ngi lay wax ahlan wa sahlan marhaban ak ànd ak nuyoo boo xam ne mi ngi jógee ci moom cheikh cheikh cheikhu Naasiru mu jëm ci yow te lee na dafay daagu daagu boo xam ne mi ngi mel ni kéwél goo xam ne dafa nekk ci tool yi dër di ca daagu nuyoo bi mu ne euh, nuyoo bi nag yemut ci taar boobu nee na dafa làmboo gëtt goo xam ne mooy gëtt gi neex ci gën a neex ci gëtt yi moo xam dangaa dem ba Cham di seet gëtt ga fa neex wala nga dem ba Tatouane di ko seex nee na ko waa Mirina ñoom ñëpp bëgg nañ ci sa ñibbisi bi àdduna bi itam bég nañ nee na ñoom ñëpp su jootal nañ yàlla su jootab sant ndax dama mas gis kuñ xam ne kii dañ koo may kër mu rot su joot ki ko ko may ne ko ndax yow da ngay julli gannaaw tàkkusaan mu ne ko damay sant yàlla mu ne ko nag Medina yëpp su jootal nañ seen borom ngir sant yàlla waaye itam ngir tontu la delloo la njukkal ci kóllëre gi nga xam ne yaa ko façon ak sa baay façon ko ak li nga xam ne mooy xaadimul umma bi mu la tuddee te def nga ko nee na ko dog nga ay ay ay njëndi diggante fii ak fi nga xam ne fii mooy ñaala ndég nga nee na loola ba nga fa demee da leen a jàngal lan mooy mbokkoo lan mooy njub fàttali leen lan mooy julli inna salaata tanha anil fahsaayi wal munkar xanaa da ngeen koo fàtte fàttali leen tariqa tijaan ne leen xanaa da ngeen a fàtte ne yonent yàlla Muhammad moo waxoon seen sëriñ Cheikh na Ahmed Tidiane ne bu leen lorante ku lor ci yéen moromam lor na ma ndax da ngeen ko fàtte mu mel ni aaya yooyu tey lay soog a wàcc keroog bi Cheikh Mouhamadul Mahi comme ni ko shaayir ba waxee tegoo ay ndëggam ci fi nga xam ne fii mooy Darfour ak la ko wër mu ne ko fàttali nga leen yàlla dee na ci lu duut nag ngay jéem a faraatu ay baat yoo koy waxee parce que moom daf ne man complexe wu ma li ma am ñeme naa koo wax fu ne ndax ci yonent yàlla Muhammad lu jógee ci moom jóge ci Cheikh Ahmed Tidiane jógee ci ñëw ci Cheikh Ibrahim bu wàccee ci man ku ma neex ñeme naa janoog moom moo tax mu ne leen soo leen gisee ñi ma doon waxat ñu raglu lañ soo leen gisee da nga xam ne reykati nit lañ waaye du tere ma wax ak ñoom ndax man waxuma ak seeni kanam seen xol laa doon waxat te xol yi dégg nañu te bi ma paree tëral nañ gànnaay yi nee na ko itam li nga xam ne mooy suuf ñoom ñëpp def nañ li nga xam ne moom ñu nekkoon ci suuf soosu yëpp nangu nañ li nga xam ne lii mooy sa jëf loolu dañ ko doon gàttalee rek xasida bi pour ñi nga xam ne dégguñ arab ak li nga xam ne mooy dem ci média bi bañ a guddal jotaay bi waaye lépp lu ñu war a wax ci koo xam ne dem na am na ndam euh, wax na ko te wax na loo xam ne itam duut ne képp ko am ndam am nga ko te mooy basira ak nuur ak izn ak Cheikh Mahi moo xam ne dafa sol dafa am ku ma wax ne ma yoon wi xam nga lan mooy mbóot mi bàyyi bay mbay siise mën na ko déedéet mu ne ma du sëñ Mahi kese dafa sol manto baay sëñ Mahi nañu moom ki doon añ ci mbedd mi di reer ci mbedd mi bàyyee téye ciy mbaggam kooku lu ne mën na ko mooy ki bay mbay waxoon ne ittee doomu aadama bu àggoon ci laali asamaan mu asamaan ko mu jot ko maa ngi koy tooñ léegi ne ko ragal naa ne da nga am gan mu ne ma gan-gan ma ne ko ragal naa ne ambassadeur Arabie Saoudite dana la seet si ne la waxal suñu diggante ak Yaman te ragal naa ne bu ko defee dana am ndam ndax moom xam na yan moyen la lay jox ne la yii yëpp man mi songoon nangu naa ko te boo ko yóbbu mu am te boo moytul sax Europe ak Amérique ne la waxal ci Poutine wa salaam ñu ngi kontaan ci toogaay bu jekk ah, bi ñu yaakaar itam suñu jotaay fu ñu mën ci nekk rek day jekk xamit ndax loolu lañu am loolu lañ doon laaj loolu mooy suñu siire dem naa ci tukki moo xam ne dëgg-dëgg jafe na jafewul ndax yàlla yombal na ko fekk ko muqaddamam fekk fa koo xam ne mu ngi amee lijaas yi jógee si bàyyi yooyu mën na kaa yombal ba nga xam ne loo gis nit ñu raglu ñoo xam ne reykat nit du problème si ñoom waaye da nga gis tamit ñoo xam ne nit ñu baax lañ ñu pare lañ pour pour lu baax bu jógee fa mu war a jógee ndax itam lu lu jógee fa mu war a jógee nga di ko xaar dina yomb a dugg ci ci xol yi parce que ñoom bàyyi dañ am Cheikh Ahmad Tidiane lañ am yoonu Yàlla Muhammad lañ am te yooyu alhamdulilah doy na góor su fekkee xam ne kon nag dem nañ ci ay nit ñoo xam ne suñuy mbokk lañ suñuy ñuy déglu di ñuy déglu lañ moo tax itam yomb nañoo déglu yomb nañoo dégg li ma wax ba ñoom ñëpp ñu nangu ko ba ñoom ñëpp ñu taxaw ne tekk ni suñuy ngànnaay bi ñu nii dañuy léegi ànd ci benn ànd ci déggoo rek ci lañuy dox waaye loolu dootuñu doxal ci lu rëy bi président bi wax na ko lii di xew yëpp surtout représentant Nations Unies yii di xew yëpp dëgg la ñoo koy def ci suuf si. Mhm. waaye fu mu bàyyee ko eh, yow Sénégalais nga yaa fi représenté Nations Unies yàlla may na la kàddu bu mën a lor yàlla may na la kàddu bu mën a jëriñ maa ngi yaakaar nga jëfandikoo côté bii jëriñ ndax lii waa Soudan am Sénégal lañ ko amee Sénégal rek bon nag war nga fexe mu gën a màgg te bu ko wàññi. te boo toppee ci tubaab yi da nga koy wàññi. te xamoon ne ba doo dee ñàkk topp parce que programme la boo xam ne tëral nañ ko ba pare ne lii la boo boo ko xasee nangu rek liñ ne lii la loolu ngay def waaye ñu ngi yaakaar na fàttaliku ne nit nga ñu ngi yaakaar nga fàttaliku ne jullit nga ngi yaakaar nga fàttaliku ne africain nga ñu ngi yaakaar nga fàttaliku ne bii yëpp ñun africain ñoo ci mbooloo nga nga mun koo dal euh, donc bon alhamdulilah rabbil alamin bàyyi mi ngi teew fu nekk. ñun ñi toog ñii ñëpp ñooy njabootam. kenn ku nekk foo toog rek bàyyi fa toog. dañoo bëgg dañoo bëgg génne lu bees. dañoo bëgg a bokk ne mën nañoo tabax àddina. dañoo mën a bokk ne duñ rek nitu laay ilaay sikk rek mu jeex ak xaar rek duñ loolu. loolu lañ waaye mën nañ cee yokk leneen. mën nañ cee yokk leneen. loo xam ne dafay jëriñ àddina bi yëpp. loo xam ne dañuy nekk misaalu nit ñi pour royukaay loolu yëpp mën nañ ko am parce que Cheikh ma jox nañu misaalu lu nekk toog nag Brejnev ximmatul kufri toog nag moom wax ak moom toog nag Tito toog nag Kwame Nkrumah toog nag moom bàyyi lu muy doye ñooñu ñu luñ koy doye waaye nag du tere balligh maa unzila ilayka min rabbika mu ngi koo ñàkk a def donc dañ toogal ñoom ñëpp te tabliigi risaalatillah def na ko ñun yëpp kooku mooy suñu sëriñ ah ñun tëjuñu ci benn rukk rek adduna bi yëpp dañu amat relation donc moom ñu foog ñu yëkkati suñu jikko ba mën a nekk adduna bi yëpp sukkandiku ci xam-xam sukkandiku ci mbëggeel sukkandiku ci dogu ne mën na nañoo yokk lu bees ci adduna ah, ci suñ kaw laa ilaaha illallaah yooyu dañ koy yokkee ci suñ kaw tawxiid bu bu boobu nga xam ne kenn xamu ko ku dul ñoon ci kaw tawxiid bu dugal boobu ci la ñuy yokkee ah kenn ñu ñaan dimbale ñu bu baax a baax ànd nag ay nit ñoo xam ne itam dëgg dëgg ay nit ñu ay nit ñu gor lañ ànd nag Mahou Cissé léeg-léeg ma bëgg dem fenn mënu ma mën a ko demal ah, mu dem mu dem mu jiitu mu dem jiite ah, maa ngi ànd ak xaaj bu ñu si maa ngi ànd ak Cheikh Moussa euh, ah, yi maa ngi ànd ak euh, euh, waa Burkina Faso ah, maa ngi ànd ak waa Niger ñoom ñëpp fu ñu nekkaay ah, fu dem rek ñoo may wër ñoom ñëpp ñoom ñëpp pare nañ luy xew luy xew ci luy xew xew ci ñun ñëpp kenn du ko fare bàyyi kenn ànd nañ ci biir place yu ñàng yooyu ñoom ñëpp ànd waxtu bu ma xoolee gis leen donc bon góor ñu góor ñu dëgër ñoo mën a taxawal ñu dëgër góor ñuy déng déng ñu ñu tabaxal dara day fa ñu am ñu am dëgëraay mais Cheikh waaye moom mooy seen misaal say joxe na misaal bu nekk ci àddina boo xam ne pour tabax wax naa président bi ne ko président bu baax kii Bourkhane maa ngi ko lii di xew yépp mën naa régler waaye ci kaw maandu si ngeen maandu si seen peuple am si ñoom yërmande am si ñoom yëg lu nekk mën ngeen ko am waaye ci kaw man naa ko moom loolu musiba la parce que moom moo ko population bi yàlla moo ko moom boole la ak population bi seetal nooy nekk ak ñoom boo ko defee rek di nga àgg si ñu waaye boo gisee ne mën naa ko moom rek euh, am nañ suñ bu mag foo dem ci àddina bi fekk ko fa mu lala la sajaada hmm. donc mën nañoo am lu nekk waaye mën ko def ci kaw yéegi ko mu dégloo ah, kaw bëggoo kaw am dogu hmm. mën nañoo yokk leneen mën nañoo yokk leneen Baye Baye Cissé sëñ bi maa amoon ay kàddu. bisimilah. bu ma la tàggatalee. gërëm da dafa am jamono ci bu gàtt basan bi. nga wax fi benn baat boo xam ne. xam naa sa xaatir moo ñëw ci sa làmmiñ nga wax ko. mooy ne dangaa bëggoon. bés bu fayda bi xewlee bés bu ñuy dem Taïba di def gàmmu Taïba circulation bi yëpp bloqué wu. dëgg la waaye alhamdulilah sa ñëw bii ngeen alxames laa jógee fi ma dëkk ci Dakar di jëm aéroport nga xam ne mën naa ko dox ak tànk def fa ñetti wax waxtu yegguma aéroport bi ma ñëwee aéroport ñu ne ma àjjuma ji ci ngay ñëw ci laa jàll si fii Kaolack itam baaba ñii seede la ñu ngoon kabatul mënuñ laa gis circulation bi dafa bloqué ba imaam imaam rek ko gis ci mbiri loolu la kon alhamdulilah rabbil yow nag sang jaay sëriñ bii toog am na fu la teg tegul kenn ndax wax na ma dégg bàyyil xel ci loolu incha allah salaamaaleykum bismillah nangu leen ñaan ñu ngi am sant yàlla bu baax sëriñ bi te ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci jëf ju taaru jorfet ji nga liggéeyal waa àddina bi yëpp liggéeyal ko nag waa Sénégal waaye liggéeyal ko sa waajur wu tedd bi borom fayda tijaaniya waaye liggéeyal ko mboolem taalibe bi yëpp loo xam ne képp ku nekk julli tey dana faaroo si jëf ji képp ku sa ko leer am xalbin salim dana faaroo si jëf ji ndax sa kàddu gu rafet na sa jëf ji rafet na taar boobu nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala moo ñu ko indil wàcce ko ci yow nga feeñale ko ci suñ kaw ñun ñëpp ñu ngi di di la ndokkeel ci loolu di la sopp di la bëgg loolu sëriñ bi di am mbégte boo xam ne suñu xol kenn xamutu fu fu mu départ ak fan la yem ndax wax dëgg yàlla Darfour bi nga demoon wax nga wu léegi say wax say kàddu ñaari cas yoo xam yëpp ay jullit lañ diin sama waxoon nañu comme ni ko waxee léegi ñaar jur bu ñu xeexee kare ak kañ rey kañ yëpp li nga la ci wax nam ñaawee nam day waar yow na nga ñëw nekk arbitre boo xam ne da nga ñëw taxaw ñaari ñaari cas yi ñoom ñaar ñëpp nga oole ñu toog nga wax la ngay wax ba xol yëpp dëppoo nekk benn ñoom ñëpp ndax ko sami naa waxtaan naa sem ñu ngi leen ndokkeel baax ci loolu di la ziar bu baax moo tax soo gisee ñu defoon discours ñun la warloo mooy dañoo xam ne victoire bi ñu am nii bi ñu yàlla may mosoo gis ko yàlla may mm-hmm. kon donc bu ñu dee ba yàlla fay na ko ci yow dana yell ci ñun taalibe yëpp mm-hmm. dana yell bépp jullit mm-hmm. mu tertu la mu teeru la mu màggal la mu ziaaro la mu ndokkee la ci li nga def lii mooy sob bu nu sol bi maa ma defoon sama discours boobu dif ma ko itam pour dara walaay dama ko dafa ñëw ci ma def ko kenn déglu ma ko it nag kenn diglu ma ko aussi waaye xam naa ne jëf jënga jëf moom digal na ma loolu man yow jëf jënga jëf digal na ma loolu kon naa ngi sant baax di gërëm bu baax dégg ñëpp àddina yëpp gërëm nañ la démb ku xool sa sa wàcc waay ci aéroport bi gan go musique kenn mosu ko tertu aéroport mm-hmm. ba aéroport nekk aéroport ba léegi lu mel ni mënu la fa la ko faran def démb mooy mbiru caaxaan la woon mbiru zahir la woon mbiru zahir su ko waxee nag yéen ñëpp xam ngeen ne football la hmm. bëgg wax hmm. daa fi ngi ko jëlee hmm. cooli boo doon trop waaye ci l'islam nag ndam lii ci l'islam ba la nekk yàlla ba léegi aéroport Sénégal mu ngi fi door wàcc te aéroport Sénégal nag soo wàccee waxuma rawatina yeneen aéroport bu Sénégal ndax nag buñ seetee sa waajur wax dëgg yàlla lim ñu bindal abyaat yi nga xam ne bàyyi na ko fi ñu koy jàng ñun xalatul bi xari saakarte wa inna nii xalatul qurra wal mun na baraxal jibaal ji wax yow feeñee nga wax ci tey bis ni ko tey man Cheikh Ibrahim tiim naa géej yi ñu ngiy duusu tiim naa dëkk yu ndaw yi tiim naa capital yi tiim naa montagne man Cheikh Ibrahim lépp nga dimbal diin rek moo tax koy def sëriñ bi yooyu tamit tey comme ni ko mbokk jam jam jam yàlla bu waxee léegi ci ci lettre bi bàyyi ma firi ko léegi yooyu tamit tiim nga géej gi tiim nga géej gi yow tamit ñooy dusu tiim nga tim nga village yi tiim nga leen tiim nga capital yi waaye tiim nga montagne yi te loolu yëpp te ngir dimbal diina moo tax la muy dimbal diina ba ñoo xam ñu ngoon ci diina réer seen seen mbir réer diina moo war a lu lu loolu di war a am nga ñëw fay safaru ba ba mu sa ba mu sa ñëpp tàlli xol yëpp tëll xol yëpp xol yëpp féex sëriñ bi kon dimbale ko diine ñu ngi ñu bu baax loo mën a dégg ci tey ak ëllëg ñu ngi sant yàlla bu baax maa ngi sant yàlla baax ni nag euh, soppi bi yàlla bi sama sama sama xarit sama soppi xam naa ko baax xam baax moom jëm na jël na jël na Abaye ah, Khalifa xam jëm na jël na benn kàddu boo xam ne sama xol bi am na lu mu yëg lu rafet lu jéggi dayoo ci mbirti nee na ma sëriñ bi ma ne ko labbe ka mu ne ma sëriñ bi am na fu mu la teg. Mm-hmm. te wax na ko ma dégg def na ko nga gis. maa ngi koy ndokkal ci wax ju rafet jooju. di wax tamit sami naa waxtaan na. Mm-hmm. dégg baax topp nañ la. Mm-hmm. rafet na taaru na lool. Eh, xasida bi nga xam ne ñu ko doon léegi nag ci eh, xasida bi li ci nekk ci ay bayaan kenn mënu ko leeral waaye ñu ngi sant yàlla baax ci mëdët bi xam yàlla mu nga sotti nit ñi. ñuy jël ndukkal njukkal di la ko delloowaat yow mhm. te yaa jëf jëf moo tax ku jëf rek ñu ne yaa jëf mhm. te yaa jëf sëriñ bi mhm. yaa jëf moo ko porte kon fokk ñu ñu tam yàlla yaa jëf jëf ji rafet na taaru na am na am na xikma lool te xikma yàlla du ko bu ñëpp yow te ma te mënee sa la yàlla wax ku ko yàlla jox la jox na la i wurëy te xikma bi yàlla may yaa ko wax léegi bi nga demee toog ak ñoom nga wax président bi jorog président en tant que président nga xam ne président réew ma teewul nekk suppa réew sax ma nga taxaw moom diggu di xool diggu mel nii bokkalam sedd ca bokkalam nooy ca loola musul ci yow arxoon wax nañu ko bu yàgg ku rey benn nit rek damay rey nga àddina yëpp waaye ku defal benn nit defal nga ñëpp kon sëriñ defal nga ndax daf sowee nga ay ruux yoo xam ne waroon nañ waroon nañ dem ci loolu te buñu dem tamit du baax nag ndax yoon tamit ko waxoon démb maam ñaari julli yu ku rey ak ku ñu reyat yoon ma ci wax dégg nañ ko yow na nga de fànq loolu ruux yëpp te nga ko yóbbu ci yàlla subhanahu waaye dox laakar wa loolu du ñu ci yow sapa moo ñu waxoon fii dégg ñu ko ne bul umu taxasi fii hum man bàyyi dama ma nga xeetu jëm leen ci yàlla subhanahu wa taala ma nga xew jëm leen ci yàlla subhanahu allahu akbar sim ñu leen dëkkal baax man li ma bëgg a wax sama xol bi xam naa ko baax sama xol fii bu suma naa wax yow fu mu nekk nii ngeen mbégte ngir sant yàlla baax daal te li nga wax yël moo dama ko sant yàlla subhanahu wa taala na nga xam ne ñu ngi sami ñu ngi ànd yow mille pour cent allahu loo ñu digal la ñuy def loo ñu tax la looy digal la ñuy def looy tar la ñuy bàyyi ndax nag ndax nag wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla caaxaan jaxe boo dëgg def def nga loo ko def gëj naa am ci jamono yunte ama sali sara ca jamono aw sax ba ba ba yunte fekk ñaari xeet ya dëngawoon yun sa wax a wax a wax ba ñaari xeet ya masala joxoon tawoon lowo te li san wax nañu ko bu yàgg bu jamono dana ñëw ñu dem nga xamee nii jaan yi dañuy foog ak xale yu ndaw yi jaan foog ak xale yu loolu loolu parabole la muy li def tey nag. mooy li nga def nii tey jaan dem bay foondoo ak ak kii lii mooy li nga def nii. sëñ daal man kontaan naa trop daal li ma bëgg a wax sama xol fees na bëri na lool. bu ne ba segg ba segg di di bëri ak béy. sëñ bi yàlla yow yaa bëri segg béy tey. waaye daan naa wax ne segg ba nga ñuy taxaw nii. genn gaa nga taxaw nii bukki ba nga taxaw nii béyoon ci diggante bi woy béy wi woy béy wi woy béy wi. kon ñoom itam ñu ngi la wax daan ñoom itam wuy wallu wuy am na ñoo xam ne waxuñu ko sell bi waaye Sonko lañu ko doon woy wallu seen yaay wala bi wala nga leen defar nga leen ñëpp ñëpp dugg nañu àjjana tey yow sa ñëw bii dugg nañ ñëpp ba àjjana mboolem xol yi doon bax baxal tey ñëpp ñëpp dëppoo nañ ñëpp sompati nañ nañ joxante nañ loxo démb bëgg bay joxante nañ loxo démb ngir yow ngir yow faydu bii wax dëgg yàlla nag may da nga may baaxal tuuti nag yaa ma waxloo yéen ma waxloo baax le ma tuuti nag ndax nag euh, faydu bi dañuy wax toujours ne doon sa baay ak doon sa baay du benn. doon sa baay ak doon sa du benn de. am na ku doon baayam. baayam nekkul ku jub mu ñëw yàq liggéey ba. am na ku doon baay xool mooy bi ñu yàqul waaye defur lu bari. yow nag da ngaa ñëw doonoo pare. defara pare yokk wuy wi. allahu akbar. loolu mu gën a yaatu. sëriñ bi ñu ngi lay sant. ñu ngi gërëm. ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay siyaara ñoonu ñaan yàlla subhanahu wa taala népp mën la ñaaral yal yàlla defal la jàmm yal yàlla aar la yàlla may la fanu gudd ak yokk sa maqam yokk sa liggéey yokk sa martaba yàlla may la fanu gudd lool ànd ak ma dundal seen ma dundal ànd ak jàmm yàlla dundal ànd ak yàlla seen bi dundal ba fi dara jógee nekk fi teg ne sa prime ak tey nga nekk fi yeneen yeneen mille laa ci kanam defare ko tey télé ànd ak wér nag ànd <laughs> ak teranga ñoo jaanoo baax sëriñ bi ñu nga mbégte lool so doom yi so doom yi nag ñëpp sama sëppe lañ léeg-léeg ma tooñ ko léeg-léeg mu ñëw mbëkk mu du du dut mu koy peñ mu ngi nii dama lay boole moom day ma fekk ma taxar mu dut mu koy peñ loolu li ko waral loolu cofeel rek la waaw bot mu ngoog man beneen ñu ñëwaat très bien waaw sama gars yi ngi kon ñi man sa sa njaboot yëpp samay soppale waaye aussi euh, maa ngi lay maa lay sant rek comme li sëñ bi wax léegi euh, loo xam ne xëy na maa ngi koy maa ngi la koy diis samay tamit wax nga ma démb ne euh, soxla nga ma soxla nga ma ci wiitaay man yow ñu waxtaan wax nga ma loolu démb dama ñëwoon pour loolu waaye xam naa ne mbooloo bi wallaahi waaw waaye euh, ñu ngi sant bu baax euh, xam naa su ma tawatee sama tawat loolu moom day yàq sama waxtaan bi waaye am lu ma tawat miin nag am lu bëri lu ma tawat lu bëri nag war naa ko tawat te fi te fii ma tawatukaay bi ndax nag ko feebar dem ci médecin bi ah médecin bi ma war a faj te ñun tamit am nañ ay tawat yoo xam ne may la ko sotti fii ba mu jeex tag te du benn du ñaar ñu ngi sant yàlla baax ci loolu nag. si saa rafet fi mu mën a xal ñu ngi lay sant di la gërëm sëñ bi. bëgg nañ lool nag bëgg nañ lool. sa njaboot gi yëpp nag samay soppe leen kii moom wax loo man ma sax moo ma di na ma sax jàmm ne ko mën a waxal lu tax mën a waxal nag moo xam ah man wax naa li ma li ma li ma xam te tuuti la par rapport li ma waroon wax waaye maa ngi sant daal mbooloo mi itam mbooloo mi xam naa sonn nañ waaye maa ngi dëkk ba sëriñ bi kontaan di wax salaamaaleykum macha allah mbokk yi ñu ngi fi direct rek ci kër xalifa bi day saar amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi

Yok

kii mooy fenn